barkeb Sëriñ Béthio zilali asafaxa mujirun mushazizu li xayril idan min xayril xuya tashazazu zilali asafaxa مجير مشازز لخير الهدى من خير القيا تشازز kaset 1946 nekk ndey cant gi waaye ca Medinatu Salaam la ñuy màggale li ni mel jur na tey ay junney doomu aadama daal di ciy defaru soxna Mame Benda Thioune mooy sama wayu juru jigéen soxna Mame Mbenda mooy taawu Kuli ak Bambi kon mook Cheikh Béthio ñoo bokk ñaari waajur yi ci Zahir ñoo bokk lépp. sëñ Béthio ni mu fi ñëwee ndigalul sëriñ Saliou la fi ñëwee. Madinatu Salaam ci cosaan bañ ko daan wax boobee kër Sambalaw be la daan wax. fii la gane àddina kër Baye Sambalaw be Diop gii ci penc mi. Sambalaw be nekkoon chef de canton ànd kuli di way juru sëñ Béthio ñëw fii ci dëkk bi loolu nag moo tax euh, bi mu demee ba jëmmi jamono taalibe yi bari di ko jox addiya ci ni mu ñu ko jàngale mu xam ni gone euh, talta am kër boobee ñu indi fi sàmba sàmba ni ko duma dem ci canton boobee di mbayaar ñaniñ te bàyyi la kajoor da ngay ñëw ànd ak man te loolee dafa fekk mu am cosaan cosaan li moo di ngir woon la yàggaay bi ñoom ñaar ñoom ñaar ñoo àndi woon xeex guerru 14 18 moom Samba Laobé bi mu ne nu euh, ta gone daa baaxawut am kër waaye kat damaa am ndigal ci Serigne saaliw dellu ci sama dëkk bee ma gane àdduna muy sama dëkkub cosaan ma sanc fa suuf eh, addi ji ngeen ma doon jox nag muy seen ñatt téeméer yi seen ñeenti téeméer yi dajale naa ko ba nekk na ab lim jënd naa fa suuf su bari soo xam ne mën ngeen koo dëkkee yéen ñëpp loolu moo waral kat sancub Madinatu Salaam ci tënk. ginnaaw bi nag Cheikh Béthio tudde woon na ko tuubaa Kër sàmba ñu dem ba ci biir ci ay waa Kër Serigne Saliou am ku ci gént. sëriñ bi jox ko turu madinatu salaam bi mu dikk wax ko cheikh bi looloo waral coppite googee ñuy wax madinatu salaam tey jii. moom Serigne beejo gëmoon loole Serigne Saliou defoon ko sëriñam taxoon na lépp loo xam te ne doon na ci dugg da doon ñëw tàllal loxo mu ñaanal ko ci loolee nag may ko ci ay ndami ndam ci administration bu Sénégal. àddina di dox mu daal di koy gëm ba keroog rek mu koy seexal daal di koy ràngal ay may yu mu ci ayib xamoon dayab alxuraan ak xasida fu mu tolloon Serigne Saliou taxoon na moom Serigne Béthio saa su ne danoon fee ci ñi nga xam te ne nii mooy ay taalibeem ñu daal di mokk li nemel mu aussi li nga xam te mooy jàng nasaraan ji ñu nekk ci ay nit yu exemplaire. buñ nee lu ko waral amaana tontu ne wax li ko waral ci ab jaam mën na mën naa mën nga cee lot waaye bu ñu waxee taarix. taarix mooy histoire 17 avril 17 avril mooy daje bi sëriñ Saliou daje ak Serigne Béthio 1946 la dajeeg moom ci taseet li waral taamu gi moo di dëkk gum fi dëkk si del si waat ci cosaanam ci ndigalul Serigne saaliw mu ñibbisi te looy waaye di def lu ne teraanga ju nekk ci sa dëkk la dàqe te sëñ Béthio amul beneen dëkk bu bii jamonoy cooron fii fii région de Thiès ci dëkk bu ñuy wax Taset foofee la sëriñ Béthio nekkoon ci tool baayam di bay sëriñ saali romb ko fa ak watiir jëm ci dëkk bi ñuy wax kër seex Ma Diop ci af di seeti ab taalibeem bu ñuy wax Baye Isma Diouf. a ah, booba tund woowu bu Serigne Saliou ñëwee kër Baye Isma Diouf lay dal mu ne seen Béthio bu ngoonee nag moo fa fekk. kon ndekete seen gise bi war naa am continuité kon am na lu mu war a jur loolu ma lay xamal ne asaar amu ci li kulli shay'in sababan sin beccu nee na foofu la ak jébbalam gi sin saali commencé juróom-ñetti at ca déwén sa la dugg école 1947 la 3 novembre ñuy dem di dem ba yàgg mu barkel am njàngam muy administrateur civil Cheikh Madiop seexub Serigne Touba la woon bu Serigne Saliou di ñëw bu jógee xabaan wala mu jógee got di dem ca dëkk boobee dëkk bi da ngay romb taseet boo rombee taseet dem kër Cheikh Ma Diop loolu moo tax ba muy génn taseet ca tool yi bàyyi sëñ Béthio fekk ko fa ak magam gu ñu naan sëriñ Gile Cuun sëñ Béthio dafa samp gopp bi daw nee na li moom mooy nettali nee na li ñuy wax luqu njóoru gone mooy léeju gone en face euh, léej gi nee na loolu moo ko jàppoon tax mu samp gopp bi daw na day langi watiir ni sa oto bi rombe ci mbedd mi xale yi di lang oto keneen wala charrette romb ñuy lang nee na loolu moo ko motivé woon rek mu daw di lang sëriñ saaliwu gis ni muy dawe di ñëw mu geestu xool ko daal ni coche bi dawal na taxaw maye ndongo li mu ñëw nuyoo. coche bi nekkoon ko ndongo kaay nuyoo bi mu ñëwee it ngir wone ne gone ak gone gu doon gu doon lang rek la ci ci jàngale nee na daa ñëw ne jàpp loxo Serigne Saliou ku ne xam ne ne sëriñ boo ko dee nuyu daa am noo koy nuyoo. waaye ngir wane ñàkk xam-xam bi ci saa ci saayir ci jamono jooju ak at yu néew yi ñàkk xamuk taalibe tax daa ñëw rek ne sëriñ saaliw jox ko loxo. ne ko Mbàkke la sëñ Béthio nee na keroog li jëkk dégg santu Mbàkke foofe yàgg defe naa ni yàgg na koo leeral waaye liñ ciy mën a wax digganteem ak sëñ Béthio umpul kenn ci sëñ Saaliwu la sëñ Béthio amee lépp ndax dogal ya kenn xamul fu mu bàyyee ko sëñ doomi baykat la woon bu demee ba cër bii mu am tey mu am ko war nañoo xam ne daal da jekki man ci jamono muy Serigne Saliou Mbacké waaw ah, ndax bu doon rencontre bu bu bu bu bu wala rencontre boo xam ne bu bu bu ordinaire la lii mu ko wax xëy na du ko wax ndax koy doo ko gis tey di gone nekk sous saa sous la responsabilité de ses parents nga waroon ne ko sax bu ngoonee ñaanal ndigal say waajur wala utal autorisation ak nangam ak sàngam waaye da ko ne rek bu ngoonee na ngeen ma fekk seen kër baay Isma Diouf da ko ne maa ngi nii maa ngi jëm da ko jox ndigal ci saase euh, maa ngi jëm sama daara ji ñuy wax kër seex Ma Diop xam ngeen seen kër baay Isma Diouf nee na baay Isma Diouf góoru góoru tiritang la woon tiritang mooy traitant ci olof moom sëñ Béthio bu daan làkk olof da ngay jàpp ni musta jàngi tubaab waaw waaye li ñuy wax traitant ah, mooy ñiy dem ci seko yi di jëndi gerte ka jaay nee na Baye Isma Diouf góoru traitant gu gu mag la woon donc ñëpp a ko xamoon ci terwaar boobu. Baye Isma Diouf mooy Baye sëñ Omar juuf mi daan jàng xaside yi foofe la mbiram ak saali wu tàmbalee ci Zaire. sëñ Béthio it ba mu delloo wax ko waajuram wu tedd wi soxna baam Bambi Thiam fekk nee na ni mu nu ko jàngale bàyyi gil. Euh, bàyyi kuli cuun mi nga xam ne mooy waajuram bu góor doonoon góor gu tàng nga xam ne daawuñu ñemewuñu woon a génn amuñoon fit wi loolu buñ doon wax jamono ji da naan loolu di problème kon léegi nan lay def ba génn waaye ba mu ñëwee wax ko soxna Bambi Thiam wax ko wax wax bàyyi Baye Gille euh, Baye Kuli Baye Kuli da ko ne ñoo ñooñu sant Mbàkke di dégg naa ñu baax lañ kon mën ngeen a dem nee na soxna Bambi Thiam moo jël keesug suukar jox leen ko ne bu ngeen demee ni ngeen ko ko nuyoo mooy addiya li ñuy wax addiya ci jamono jooju 1946 17 avril précisément au soir mais mais daje bi rencontre boobu nga xam ne moom la ñuy célébrer moom la ñuy màggal moom mi nga am ci yoor-yoor waxtu yoor-yoor la am daje bi waaye nag euh, seen seen ba muy ñëw kër Baye Isma Diouf guddi gi guddi la fa la reer reersee kon euh, diggante bi ñuy gisee. bay bay bay bay weccee ay kàddu nan nga tudd ak foo dëkk ak yooyu yëpp ak kee ca tool ba kana ci saase la ko jox ndigalu fekk ma kër Baay Isma Diouf. da daan wax nii moom ci boppam li ma Serigne Saliou defal laa xamul xamul lan la boo ñëwee sama bureau may signé ay mandat ñuy fay million boo ñëwee sama bureau doo am foo jàll ndax taalibe yi summi seen dàll ci buntu bureau yi rang di jébbalu. mu boole ñaari fonction yi kon cheikh bi alaaji Mor Mbay ku ko waxoon ni ko si bu njëkk ab sëriñ da daan ragal ab commandant kon li am ci jamono ci jënn jëmm sëriñ Saaliw rek la ko mas a la ko moo ko mas a def ci génn jëmm yow cheikh nga commandant nga mu boole ñaari fonction yooyu di 88 à 96 il a pris sa waaye laata loolu it 1983 Serigne Béthio ci la njëkk a dégg baatub sëriñ te sëriñ Abdou Lahad Mbacké mii di xalifa à l'époque di xalifa général des Mourides moo bind ab lettre Serigne Saliou ndax boobu sëñ Béthio moo yóbbu woon jëfam ci ab liggéey bu mu doon laajte mu koy muy wax sëriñ Saliou ne ko bëgg ko wax ne ko euh, di ko rendre compte ndax taalibeb Serigne Saliou la moom sëñ Béthio sëriñ Saliou yebal ko ne ko demal fekk sëñ Abdoulaat jox ko sa jëf ci liggéey bi muy liggéeyu jumaa ji bi mu koy rendre compte da ko ne sëriñ Béthio Thioune ñëw na fi indi na fi jëfam kon sëriñ Abdoulaat ci boppam sax mën naa ne moo njëkk a feeñal turub sëriñ sëriñ Béthio it ànd na fa ak mbooloo muy ay mbokki boppam ay jarbaatam ak yu ni mel sëriñ Saliou ne leen digal naa leen bés ni tey bu leen sàllawlooti turam wi de leen ko woowe sëriñ Béthio sëriñ Saliou d'abord boo masaana gis bëgg gis mbégteem na seen Cheikh Béthio bu seeni Cheikh Béthio wala nga dikk sax ci moom ni ko Cheikh Béthio ni woon naa ñëw ziar si moo ma yebaloon da ngay gis mbégte mi sëriñ Saliou du yàndal loolee war moo waral mu ni ko ma yaay man may yow jàpp ci man muy jàpp ci yow muy dëgg dëgg dëgg jàpp ci man ku ko def di nga ma def lu ma neex te di ma noppal fii ñu ne ak fu ñu jëm loolee la ko Serigne Saliou defal ci tënk yaay man nag maay yow garaat na ko mun la weesu ci jëmm ju mel ni Serigne yu Mbacké waaw investissement bi Serigne Saliou def ci moom mu jàpp ndaw ñi ak mag ñi sax waaye ndaw ngi da ca ëppee def ci ñoom mbirum yàlla defar leen jële leen ci ab safaan tàbbal leen ci ak mbaax jële leen ci lëndëm muy mina sulumaati tàbbal leen ilan nuuri muy ci ak leer ci ndigalu sëriñ Saliou Mbacké fekk ay nangami million ngi nit yoo xam ne bu du woon ak sëriñ sëriñ Béthio duñ xam yàlla wala xamu aada rek lay doon duñ xam yónnante bi wala xamu aada rek lay doon bu du woon seen Béthio mbirum diine du doon seen yitte lislaam du doon seen yitte waaye sëriñ Tuubaa du doon seen yitte ñooñu la jël defar ban baax def ci seeni dënn yàlla def ci leeruk suñu borom def ci ay xasaay def ci alxuraan def ci bëgg Serigne Touba waaye def ci ñoom xolub jëfal Serigne Touba. di jàngalee moom danaan ànd ak ay mbokki taalibeem daan dem di siyaare ji Serigne saaliw bëri na ci ñu ànd ak moom ñoo xam ne ba fii mu ne li ñuy wax jébbalu ci moom sax defuñu ko ndax ay mbokki taalibeem la ñu woon di ànd di dem ci Serigne Saliou ba Serigne Saliou def ci moom li mu def ci moom ñu jàpp ne rek xëy na c'est des compagnons de première heure. kenn kon ñoom waruñoo mën a jébbalu wala yu ni mel waaye 1987 euh, googi nag Serigne Sall def ci moom loolu ñuy wax ak Cheikh ba noppi nag boole ko ku ñuy wax Serigne Góoratin ca Mbàkke Baye Góoratin ci Mbàkke defe naa ñëpp xam nañ ko ci yoonu murit sëriñ Sall sëñ Béthio daa ñëw bés mu ne ko bés tey de damaa bëgg nga dem ba Mbàkke siyaare ji sëñ Góoratin sëñ Béthio moom xalaatul dugg Touba xelam di nekk ci kenn ba mu koy siyaare ji fi mu ne nii lii yoonu murit di wane vidéo yi ñu koy wone koo gis sëñ Béthio dem ci moom Serigne Saliou ko digal mu ne ko ah Mbàkke lu ma fi mu ne ko dama laa tëggal médaille wurus waaye moom laa bëgg mu takkal la ko sëñ Béthio déggul wala fi ndax xamagul li xew ci saayir dafa mel ni surprise mu ne ko baax na Mbàkke daal di daa di laajte nga koo xam ne fa ngay dem la da nga fay laajte xam nga ne xamoo fa mosu faa laajte ñu wax ko ba ba sëñ fa mu dëkk ca Mbàkke mu dem fa bi mu demee nuyook moom mu ne ko sëriñ Saliou dey moo ma yebal ci yow nee na naa ñëw siyaare la si la ndax dama tëggal médaille wurus boo xam ne nee na yow mii la bëgg nga takkal ma ko ana médaille bi di xool mu ne ko déggoo yolof de mu ne ko ah mu ne ko sëriñ saaliw nee na daa def ci yow loolu ñuy wax ak ceex loolee nag ba mu ko sëñ Béthio di am boobu ay mag ñu ngi ci kër gi ñu ko mat woy juur ay taalibe itam yoo xam ne ak maasam lañu woon ci Zahir yàgg fa lool ña nga foon ñii di jàng ay ak ay jàngkati alxuraan ñii di boroomi xam-xam moom mu dikk jàngi nasaraan lu foofee la problème ba ne lu tax sëñ Béthio daan wax ni moom mbindum arab alxuraan waaw la ci xam ndax li mu nurookub neuf kon li waral sëriñ saaliwu cër boobu mu jéggi ñëw ñépp di ko ji di def ko ci sëñ Béthio foofee la wax ji waaw la tax mu def ko nag nit mënu la koo wax sëriñ saaliw nelawul yeewu rek ni sëñ Béthio yow la tax mu def ko moom rek a ko xam. mu ah, moo sëñ góor lu di ceex nee na ma tàmbali nag moom sëñ góor tàmbali di ko nettali li da ko laaj lu di ceex waaye moom da ko doon li histoire seex yi di ko limal ay seex kon nga gis ni eh, laaj bi ak tontu bi xëy na bokkul di ko li seex yi niñ fi demee bi mu delsee Euh, euh, siyaare Serigne Saliou di sant Serigne Saliou ko ne xanaa gis nga daanu kat de mu ne ko waaw Mbacke mu ne ko lu mu la wax mu ne ko Mbacke nee na day da nga maa tëggal médaille wurus boo xam ne moom moo ma koy takkal mu ne ko sàllaaw mu ne ko nee na da ngaa def ci man loolu ñuy wax ak ceex te moom moo ma koy wax Serigne Saliou da ko njëkk ne waaw ceex kooku danga nga koy yelloo lool danga nga koy yelloo lool te maa ngi ñaan ci yàlla ak ci Serigne tubaa ceex gi barkeel. mu ne ko mbaa loolu rek la wax mu ne ko ah Mbàkke moom de laaj naa ko lan moo di ceex mu ne ko hii Serigne pour won nag wone nag li mu def ci sëñ Béthio mu ne ko hii mbaa waxu la ci dara mu ne ko ah kay moom kay nekk sàllaaw mi ngi fa mu ngi ma doon leer mu ne ko sàllaaw di mënoon naa yem ca la ma ko wax loo rek ndax ak ceex day fokk sëriñ tubaa Touba tànk góor yàlla dogu fa. mu tànn ko moom Serigne Saliou yaral ko boppam ba mu soob ko mu xëy ne ko def naa ci yow loo xam ne ku yàlla sama boroom xamu ko. nanga xam ni sax eh, sama diggante ak yow jàppe ko ni ñaari ndabi ndox nga jël wattu ndaa di tànk ci lii di sotti ci lii mën na si caa xam lu dul lu tuute ni doq yi wadd ci diggante ñaari ndab ya ndax li ma def ci ku dul yàlla sama borom xamu ko te sëriñ Tuubaa ne kullu sunhatin dalilatun ala saanihiha jëf joo gis lu mu rëy rëy rëy kàttanu ka jëf-jëf ji rek lay wane daal sax bu rafetee dañ cey xamee mën a liggéeyub uude ba bunt ba rafetee dañ cee xamee mën a liggéey ouvrier ba kon saa yoo gisee obse ak mbir mu mën a doon kàttanu ka jëf-jëf ja moo cay feeñ sigil ndi gaale yee bari moo baax waaye bu ay yëfam wéyee ñim fi bàyyi ñoo baax sëñ Béthio cër bi da ko dafa xam ni cërub yàlla la nga xam ne Serigne Sall li muy def li ma doon wax sànq ne daa assumer Euh, li muy def da ko ñeme waaw keroog sëñ Béthio da daa ñëw leeltu xadar la fii ci mbuur mu ñëw at dajeeg moom siyaare ko sëriñ Saliou ne ko bés ni tey ku la gis dem àjjana ku la xam dem àjjana sëñ Béthio nee na Serigne Saliou lal bi mu toog man bi ma daanoo jël li ñuy wax jëllu murit ci biir lal bi laa dugg yuuxu fa def fa yëfi yëfi daanukat ba génnaat ne ko moo mbàkke lu ma la defal ba nga wax ma wax ju jii mu ne ko sëriñ Touba moo la nangule lu mu mësta nangule kenn nee na bi ma génnee tombeek Thierno Mansour Baro mii yàlla daa dogal it man mii di wax ak yéen teraanga yi nga xam ne moom la soxna Aida Saliou di yóbbul Thierno Mansour Baro chaque juma man mii maa koy yóbbu te lii waa këram jaaraat nañu ci wax ma ko Thierno Mansour Baro indi aw nag wu mu doon joxe Serigne saali muy participation moom it ci leetu xadar bi mu ne ko Thierno dégg nga li Serigne Saliou wax léegi mu ne ko lu mu wax mu ne ko nee na ku ma gis dem àjjana ko xam ne àjjana mu ne ko eewaay eh Serigne bi daa baax rek dina ko wax yow mii nga xam ne ab taalibeem nga di ko liggéeyal boobu ba tey waaye sama nag wi ma yor moom Serigne Saliou am na maqaama joj bu ko sooboon nag wi koo gis dem àjjana koo xam dem àjjana tey mu làqu suñuy bët waaye comme rek la ñuy wax ni Serigne Touba amul tànk ginnaaw njaboot ji mu fi bàyyi nag tey jii ñu ngi def liggéey bu mucc ayib ànd ko ki nga xam te nii mooy soxna Aïda Diallo bi fi jógee mu jox ko woo ay taalibeem ni leen dénk naa leen soxna Aïda man mii ci laa bokk ku ànd ak moom di nga ma di nga liggéeyal Sëriñ tubaa mbooloo mi jëfe ndigal loolee mais foofee li mat leeral moo di ndigal la lu jóge ci suñu sëriñ waaye teguñu ko ci coow li nga daan digg ci réew mi ci ak xalifa yow mii boo demee sa kër way jur sa way jur am na xalifa ah, sa kër way jur am na xalifa ndax am nga ay mag wala boo amul yi mag yow mi yaay xalifa man mii am naa ko keneen am na ko xalifa santu baayam lay sant loolee la tudde tuddee xalif maanaam ki fi mag sëñ ab Lahad daan na wax ne xalifa du dara lu dul yaay sax ci déggi moom ci boppam day jàng xasaay moom ci boppam day téye micro jàng xasaay day daaj day mokkal day tari day fittante comme ni ko amul xasaay bu mu war a jàng taxaw di ubbi téere di ko xool moom soxna moo jiitu ci yëf kon lii yëpp day dogalub Serigne Saliou dajeem ak sëñ Béthio la fa xew lépp ba ba fii mu ne tey jii nag ñëw ci dëkkam bi nga xam ni mi ngi nu fi bàyyi dégg-dégg jëmmam soxna Aida Saliou nga xam ne mbirum sëriñ sëriñ Béthio lay pérenniser mbirum sëriñ Béthio lay doxal ab sëriñ mbiram dadul taxaw sëriñ bu mat sëriñ moo tax may wax te su ma nee sëriñ bu mat sëriñ it sëriñ Touba sëriñ Saliou mii tax may wax sëriñ Touba sëriñ saaliw moo def sëñ Béthio lii mu doon sëñ Béthio bi mu demee ba yegg yegg ci support cosmique bi nga xam ne moo dencoon mbirum Serigne Saliou mi ko ne woon yaay man may yow euh, war a dem daa wax ak àddina ñëpp dégg mu ne aydaa daa ngi maani mooy man mii maay moom mii lu jiitu loolu it wax na ne Aïda jàll potentialité la boo xam ne su ma nee war moom ngeen war a gis soxna Aïda it ba sëñ Béthio nee war ba léegi 2019 yàggul daa yàggul mille 2019 ak léegi cinq la soxna Aida téye drapeau Serigne Béthio bi aje ko aj ko fii mu ko aj sóob nu ci nag ñun taalibeem yi yi am tawféex sëñ Béthio boole noog moom mu sóob nu ci bëgg ci pastéef ci xam ba bésub sëñ Béthio bii di 17 avril yéene ju sëñ Béthio amoon ba tax muy laaj sëriñ saaliw bés ba weer wa ak at ma ngir sant ko ci tey jii boo ñëwee fi sëñ soxna Aida di sante Serigne Béthio di ko sant santalee sëriñ saaliw di nga xam ne kii kat wàccoo na ak sëñ Béthio waaye am sa liggéey booy liggéeylu seet ka nga ca doy la nga jox ko ko mu yeggaleel la ko fa nga bëgg loolee dafa wuuteeg cërub xalifa loolee tax mu tànn soxna Ayda loolee ngay wax ndigalul sëriñ Saaliw nag moo doon ci bokk na ci lim mujj digal sëriñ bi nañ fonk màggal gi nañ fonk xasiday Serigne Touba moom sëñ Béthio mu teg ci ak 17 avril bii loolee mooy sa faydu kon looloo tax tey liggéey bi àgg fii ku ne xam na ni sëñ Béthio bi muy tàmbali ak ba keroog muy làqu ci suñuy gët fii liggéey bi nekkoon weesu na ko loolee nag li ko waral moo di bàyyi ku baax sa ginnaaw walla nga dénk ku baax sa ginnaaw noonee la demee loolee moo waral soxna Aida tey nekk ci kanamu liggéeyu sëñ Béthio bi jiital ko te boobee ba tey ndam lañ fii gis. kookee nag moo nu dënk dénk nu soxna Aida moo ñu jël dénk nu soxna Aida nga xam ne la croissance explosive de mbirum sëñ Béthio mooy mbirum soxna Aida feeñagul sax nag waaye dañu naan si tu veux connaître ce que fait réellement un leader observe ce que font ses kuñ fi naan njiit nga yit ñi nga xam la valeur de ton leadership bés boo wanee ginnaaw mbirum sëñ Béthio tey la gën a dox. yéenay sëñ Béthio ji soxna Aïda Saliou matal na ko mbaa xam nga ne bi muy dugal nag yi ngeen gis bërki démb bi mu koy dugal ci dëkk yi ëpp na ñaari weer li mu xonte nag yi képp li mu leen xonte bañ duggee ci dëkk beeg léegi rek xont bi képp budget la waxuma laa li mu nag yi ñu fi gis ngir lan waajal bésub sëñ Béthio bi. daf nuy tere nu nuy avancé ci ay chiffres ak i nombre te it day nuru uj bu muy muy muy naw jëf waaye kat euh, bët moom lu mu tegu lu ne dina xam lii lu mu waa li mu fi déployé ci ay moyen déployé ko fi ci ci ci ci ay yëf xam nañ fi mu aj bisub sëñ Béthio bii kookii nag moo téye yëfi sëñ Béthio ab sëriñ nag mbirum mbiram du mbirum askan yàlla mbiram moo koy def fu ko soob moo koy def ci ku ko soob ba muy tànn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di feeñ ci moom yonent bi tàgguwu ko yëgu ko kon yàllaay def lu ko neex fu ko neex ak nu mu ko neexee wa in min shay'in illa indana xazainuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin maalumin yàlla dane lépp loo gis nun yàlla noo ko téye waaye noo koy feeñal fu mu nu waxtu wu mu nu tey jii la ko soob nag lu nu daan gis ci mbir ci ci jëmmi góor mu feeñal ko ci jëmmi jigéen waaye kat mu def loo xam ni góor goo làmb boo boo fa demee lii soxna Aida Saliou di def gàcceel na ko. Serigne Béthio na Serigne Béthio man li Serigne Saliou defoon ci man ba tax ma man loolee lépp doon def loolee lépp yor njariñ di jariñu di jariñe loolee lépp def naa ko bis ne tey ci moom ban ko defee ci moom rek la doon benn support kon la doon jenn jëf joo xam ni la muy reflété mooy ka jëf-jëf ji moo tax soxna Aida fii mu yóbbu liggéey bi ni nga ko waxee tànk kanam yi ci feeñ ba ci togg ajjuma yi nga xam ne chaque ajjuma mu dépassé lépp cinquante millions te ajjuma ak morom ja ni mu jegee waaye day gën a jëm kanam waaye du jëm ginnaaw ba noppi it loola yàqulu ko dara ak mission bii ko sin becco bàyyeel gis nga di seen afil bii lu mu ci doon def benn ren jii yokk na ko ba juróom soxna de ngay gisee ay gone yu ndaw mën di la durusal xasaayit yoo xam ni di la wàcceel kaamil yoo xam ni di la taxawal di la yëkkatil xasaayit yoo xam ni te loolu dinaa la ci wan léegi ay ay ay waaw parce que am na si loo xam ni sëñ Béthio de foi waaye nag kéemaan la ci ñenn ñi ñun sëñ Béthio yar nañu ba nga xam ni wóor nañu ne moom lu am moom ay mujizaat la kéemaanam la waaye nag <laughs> du lu du lu yomb de déedéet ku lu yomb gone gu ndaw tudd maam jaara buso tudd soxna faati tudd soxna baam bi tudd neneen ak neneen ak neneen mënun tal leneen wala ne ci leneen nga tënk ko yow soxna Ayda yar ko téye ko ndax tawféex googu yi moom lépp ci moom la cristallisé woo ci bis bii nga xamante ne moom la ñuy waajal booba ak léegi muy le 17 avril 1946 di bisub daje bi nga xam ni Serigne wu mu tedd mi dogal yi ci la amee digganteem ak Serigne Béthio ñu daje foofu sa taset en 1946 ba tey jii muy ëpp ji yitte ji ci cantaakoon yi li ñuy sante yàlla ci jëmmi Serigne Touba gi. toggi àjjuma yi wax nga ko. boo dikkee dans le département de Mbour daaray alxuraan ju fi nekk soxna ay daal lay jox ay xew loo xewloo ajuma jumaa ju fi nekk moo lay jox loo xewloo ajuma garage yi moo leen di jox ñuy xewlu marché yi moo leen di jox ñuy xewlu le centre des handicapés de Mbour moo leen di jox ñuy xewlu ajuma la prison civile de mbuur moo leen di jox lu ñuy xéewloo ajuma ak les hôpitaux loolee sëñ Béthio bàyyiwu ko fi woon soxna ayda ci ni mu manantee te fas yéene jël drapeau sëñ Béthio bi te du laal suuf loolee ca la ko yokk. yéen ak yéen ak ñun ñoo nekk ci dëkk bi ñoo ñoo ñooy ànd yi fii boobaak léegi waaye fii mu teg liggéeyam bi wax dëgg sëriñ Touba boole ko patt ak organiser ni ñu koy waxee tontuwul kenn waxloowul kenn. keneen ku wax ak ci leneen loo mën a wax lu génn liggéeyu sëñ Béthio bii tey tuddoo soxna Aida Saliou yaa ko def ci sa coobare soxna Aida Saliou wax loowul kenn tontu loowul kenn débat kenn li ñuy wax kaa kaaloowul loowul kenn ñun am nañ kaa yu ñu doy sëkk mooy liggéeyu sëñ Béthio bii ba fi sëñ Béthio di ne dey ku ne xam nañ sëñ Béthio jàmbaar la ku ne xam ni sëñ Béthio borom ndimbal la loolu moom lu picc yi di sabe waaye nag bi mu demee ci ndimbal loole dénk ki moo xam ni moom la dénk ay mbiram ah won na ko ni dénk ko ab yaafus la sëñ daan def lu mu daan def benn def yóbbu na ko tey ñett dama ci boole itam li ngay xam ni moom lañuy wax tawasulu maanaam weer wu jot wu dee wu ne fii mbuur gi ba jàll Touba Tiwaawan Ngaabu cees fu ci nekk sa ceeb dana fa dem say saaku ceeb dana fa dem weer wu jot ngir loolu mu def ko ak tuub université la nu daan fekk et qu'est-ce qu'il nous dama bëgg bu ngeen di jàng ngeen dama mettre en médaillon da ngeen dem en médaillon <laughs> moo tax université ñun déjà waxuma la sax loolu du woon sax lu nuy tiital ndax amour lañ daan demee donc sëñ Béthio dañoo mës a topp ñu mës a am ndam ci sunum njàng euh, dañ daan dund big momentum ci xam-xam ñi jàng ñi jaar tey de la fosse ñi jaar ci yeneen écoles yi Blaise Diagne ak yooyu ziar des bulletin dafa amoon tous les vendredis ziar des bulletins da ngay yegg si indi sa bulletin boo amee su moyenne mar day taali moom day tàkk sa kaw nangu ko woon moom jàng parce que mënoo yor am xel di réfléchir di jàng alxuraan di jàng xasaay bëgg a tëju ci am ci ci bëgg tëju ci am tubaab. parce que dafa amoon daara ju ñuy tuddee lii et collège loolee élèves yi ñoo ca nekkoon mu wutal wutal leen bis boo xam ne nag da euh, taalibe yooyu di ay élèves ñoo ko ci ziar cité booy ñëw indaale say not muy xool te loo nekk mu soññ la ci ngir nga gën a góorgóorlu. looloo waral ci biir liggéey bi muy liggéeyal Serigne Touba looloo waral taalibe intellectuel yu bari yi mus la bëgg médiocrité sëñ Béthio fu mu masa ne ak lu mu masa liggéey lider la l'excellence rek la masa visé waaw ñi amul ñu ñu seen bulletin yeeg seegul seen i devoir la indi te sëñ Béthio il avait moom moom il avait tout son temps moom da ngay toog ñëw ana ana bulletin yi mu génne xool not bi sàngam not bi sa ah waaye loo xoola ba am ci not bi waaye yow tam daal mar kii man la xool benn bu nekk nga jàll soxnaa yi day même chose lay def même chose lay def kon boo xoolee jimmi soxna Aida ji mën nga koo bañ a xam waaye boo xamee principe bii ma la wax danga nga xam ne soxna Aida kat kun investir la waaye ko ko investir mooy jëf ci moom moo tax soxna da ay aktam ay jëfam ay jéegoom lépp la muy wane mooy kàttanuk sin man-manu sin beccu yére yërmandey seen becc waaye tolluwaayu seen becc lay wane. damaa yor kuréel goo xam ni ñii dañoo nekk Espagne ñii nekk France ñii nekk euh, itali ñii nekk Sénégal ñii Sénégal Dakar Thiès Madinatu donc seen not dama koy surveiller. même ci école bi da ngay suivre seen note da ngay dem seen soxna si dala damaa digal may dem seen école di dem seen école di xooli seen ay note di xamante ak seen ay prof di xool ndax ñi ngi jàng bu yàggul dara bi ñu indee note yi. da ci am koo xam ni deuxième la jël soxna si daa jël téléphone am jël bulletin bi copier euh, photo ko xool gis ne ci digg ñëpp ngi toog mbooloo mi mais et la pris son temps daa jël temps am pour wax la ne yëf yi ni mu ko ñoree mu jël téléphone bi photo ko ba pare ne ko deuxième nga jël mënu ko waaw mënu ko wóor na ma ni mën ngaa jël premier xool gis ne ci matière yii la am ay lacune mënu ma digal naa la nañ ko utali prof yi nga xam ni ci matière yi la am lacune utali ko ci ay prof bu fi ñaat na jël premier. xanaa di santaat Serigne Saliou Mbacké di ñaan Cheikh Béthio ay leeram yàgg ñu suñu biir di ñaan màggal gi yàlla bu mu doon suñu mujjug màggal yàlla nañu fi dajewaat ci xéewal yàlla nañ fi dajewaat ci njub yàlla nañ fi dajewaat ci lépp loo xam ne ay ngëneeli Serigne Touba la. te di ñaanal soxna Aida Saliou bisam bii ak nii mu demee bu dewee déwénee ñoo ngi koy ñaanalaat mu def ko ak te ànd ak wir na ànd ak mucc na ànd ak tawféex mbooloo mi yàlla bu ci kenn wàññeeku te yàlla na ñëpp yokk barkeb Serigne Saliou Mbacké barkeb Cheikh Béthio ca Medinatu Salaam nag li nga xamante ni nii mooy di 17 avril saa su ñëwee rek da ngay gis que ni mbir yi day gën a yokk loolee nag li muy firndeel bëri na mooy li nga xamante ni nii mooy waxi Serigne Touba ga ni amul tànk ginnaaw te rek tey ju day gàcceel li nga xamante nii mooy démbam. You're وبالبشر العزوم سلام الذي ينغى لما غن ظلام من ينوار قلب من هو رين يكذب